Daouda Mboup soppe nabi euh, sëñ Daouda ñu ngi lay nuyu di la ziar euh, ngay wàcc yow euh, sargal maam Cheikh Makhtar Diop le 6 mars àjjuma bële ngeen koy amal ca théâtre national Daniel Sorano biñ la ziaree ba noppi bàyyi la nga wax ñu solos bis boobu la incha allah. xayru nabiin man faaxaat nubuwatuwa yow siduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg na ko sallallahu alayhi wa sallam <laughs> ci lu baax ah, ci baax waaw yàgg dégg daali xayru nabiin man faaxaat nubuwatuwa Muhammadu Lamin hmm. nubuwati rusli min urbil wa min ajame yow yot nan hmm. ndeysaan waa dal rusli man faa sama wasara min saayiril umami bilaay keddu yonen wa sayyidul xalqa wa sayyidul xalqa sayyidul xalqa sayyidul xalqa usasa jaay sayyidul xalqi bu xaar mbay la indi wa sayyidul xalqa man afaal fekk àddina laay bàyyi dugg ci nii fi mu kawe zikri bi kamali bàyyi ko ñaata yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa jëkk yaa saar yaa màng yaa mënu gan yow Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa jëkk yaa taaru yaa waxaat ko ma ni ka nabi yaa jëkk yaa taaru yaa màng yaa mënu gan hmm. sang baa ci Madina ko teral xanaa xamuloo ni yow boo dëggee ci xeer mu dëgër bu dëggee ci xeer mu nooy bu dëggee ci suuf mu dëgër bu toogee ci naaj wa naaj wa ker ga daal di koy si moom muhammadu rasulullaay àddina nga koy àggale ca soraano sañu ba ca madinaay siidil xalxeeg ñee sang bee يا سماء أنمت ونضحى سماء صلى الله عليه وسلم daa bëgg ma kii di ko mais bàyyi ma fekk la soraat moo tax mu lay yëngal <laughs> ah ngeen ko déggee rek neexul sax dama kaa namoon <laughs> ndax sama jàkkaarloog moom dafa doy waar kayfa talxa ruqyaka lanbiyaa yaa samaahu ahmata walanhaa samaa'u sallallahu alayhi wa sallam yonent boo tudd rek mooy kilifaam lam yusaa'uka fil hulaa ka wa xadaa bilaay kenn du yonent billaahi la saman min ka dunaw wa sanaa'u wa sanaa'u sallallahu alayhi wa sallam mais alaaj daawda xam nga lii njaabalu gileem xajul ci waañ. na bàyyi ba le 6. bàyyil ba le 6. Ah, ah? euh, xam naa boo teeloon a yéeg. bi jot na. Mm-hmm. daañu ci jàkkaarloo bu baax baax baax. waaw yow da ngaa bokk ci bis bi. waaw ci ndax yow bokk nga ci nga xam ne bi may départ la woon ba tey. nga ñemeloo ma wan ma yoon wi. Mm-hmm. kon yal na yàlla guddal sa fan. waaye Pape Cheikh ñuy waaj bis bu mag. Mm-hmm. muy guddi Seydina Mouhamad. waaye sargal sunu bunt ci kër Cheikh Sadbou muy maam Cheikh Makhtar ginaaw bu ñu ziyaaree xalifa général Cheikh Ayar. lu Cheikh Taal bi yàlla fi yàgg loolu tawéer. di ziyaar sunu xalifa Cheikh Makhtar Diop borom daaru. di ziyaar kilifa diine yëpp. di ziyaar ay rakam ñi nga xam ne ñoo nekk ci mu boole ñoom ñuy liggéey muy Cheikh Mohamed Fadel Diop ak Cheikh Mahed Diop. Cheikh Adama Dieng ca Paris. macha allah ñoom ñëpp ak seenu njaboot. ñu ngi leen di ziar di ziar nag sunu way jur muy alaaji Cheikh Abdou Mboub yàlla na fi yàgg loolu te wér. amiin amiin di ñaanal yàlla yàlla may wér. Mado ci bis bi. ndax daaw macha allah gisoon nañ li nga ci taxawee ren nag ñuy def ko le 6 mars ca Sorano ah, ñu ci woo jullit yàlla yëpp di ci woo képp kuy soppi boo gisee affiche bii di daw nii mooy parrain yaa ngi noonu su ma limee rek damay jóg. ban heure lay commencé. 19h ah, incha allah. incha allah waaye nag ñu ciy rendre hommage Cheikh Khalifa borom gileem gi. borom gileem gi nga xam ne suñu sang boobu làqu di ku baax di nit koo xam ni ñëpp la amal. Ah, lu baax. man ban heure laay yéeg ak yow. yow day heure boo ñëwee rek waxtu woo ko bëggee. ndaxte dañ ciy jaale Cheikh xalifa njaboot gi yëpp ndax demam gi dafa diis lool ci ñun nit ku baax moo dem moo tax ma ni ko alu bayti rasulullah yéen kay jaalet naa leen Cheikh Al waa jadaan wargaleem nga wàcc naa waaw loolu ma bu ngeen ko daggee na jàll noonu rek jeex na <laughs> maaw dagg na ko waaye garaaw amul problème de toute façon jàll na puisque ñu ngi en direct programme bi daal ñu ngi ciy woo ñëpp le 6 mars oustaz Pape Hann na ko yàlla la lafal cat juróom-ñaari programme jàll na fi bu ci nekk le 6 la benn bu ne laaj na ban heure lay yéeg <laughs> xanaa mu doon 15 15 15 oustaz Pape Hann rek <laughs> kii oustaz laa bëgg xale yaa ngi koy toppandoo sax dañuy doon ñaari xale di filmer seen bopp di commentaire ceebu jën te hé hé hé kii di firi kii di woy ceebu jën yii la xale yi xewal ci TikTok bi léegi <laughs> yaa oustaz yow yaa ngi fi rek tànn ak wér ñoo la jàppee sa soppe bi rek Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu fas yéene ko euh, amalal ab guddi bu rëy mm-hmm. euh, incha allah ñu ngi ci woo ñëpp donc le 6 euh, mars la ñu koy amal ca théâtre national ba Daniel Sorano ak Daouda Mboup soppe nabi ñu